dal leen ak jàmm AGT news chaîne bi leen di jox xibaar yi wér te wóor abonné leen képp moom la ñuy waxtaani moom mii di principal opposant bu président Macky Sall politique am mi ngi yegg fu nekk ci kaw suuf moom président Ousmane Sonko presse internationale bi moom la ñuy waxtaanee ñu ci bëree bëri bind ay article jagleel ko intoxication bi mu ne président Macky ak waa këram ñoo ko doon jëm ci moom ki daal di jël ab bakkenam yooyu le organe de presse mën nañ cee jël le monde ñoom nag ñu def ab article ne Ousmane Sonko au Sénégal affirme avoir été visé par un gaz toxique mortel maanaam moom Ousmane Sonko leader ba nekk ca Pastef nekk di diriger politique gu Sénégal jamono jii moom a gaz le monde nag dikkaat nañ bu baax a baax ca mbir ma yëpp na mu demee tàmbalee ca procès ba digganteem ak Mame Mbaye Niang ba mbir mi ni mu koy daal di dalee ñu jël ko daal di dugal ci fourgonnette yóbbu ko ca tribunal bu Dakar ngir ñu daal di koy atte atte ba mujjul am ndax moom Ousmane Sonko ca l'hôpital la mujjee bés boobulee gannaaw ba mu yëggee këram li mel nag di wane tey dëggal encore une fois dimension internationale bi nga xam ne président Ousmane Sonko daal dina koy a dëgg ba tax nag partenaires yi kenn nanguwu ko bàyyi muy sombre muy dugg ci guuta goo xam ne kenn du xam fu ñu koy waxee ndax bu boobaa dina impacter Sénégal impacte waalo yeneen ay dëkk yoo xam ne seen intérêt mi ngi ci biir loole moo waral Ousmane Sonko Mame Mbaye Niang Ousmane Sonko Adji Sarr loolee lépp di ay procès war nañ koo xool xoolaat ko seet ko seetantal ko ndax birum diffamation yaakaar nañ ne warul mën a tax candidat bañ a dem ci élection présidentielle waaye itam mbirum aji Sarr nga xam ni lépp lu ci ñëw comme ay preuve dafa nekk à décharge par rapport ak Ousmane Sonko tey ñu yóbbu ko ci chambre criminelle war ko dal di jugé mu nekk nag ay mbir yu doy waar yoo xam ne sénégalais yu ci bëree bëri ñu ngi ciy yëkkati seen kàddu waaye itam presse internationale bi ñu ngi ciy dox ay jéego ndax bàyyiwuñu benn yoon Sénégal ñi ngi koy seetaan ñi ngi koy suivre di xool li fii daal di xew bés dina ñëw nag ñoom ñooñi ñu def seen ay analyse xool dëgg gi fu mu féetee ngir mën a déterminer exactement lan moo xewoon ci boobu lépp bés ci mënti am mooy que président Macky Sall moo daaxalu woon Ousmane Sonko ca fonction publique moo ko may doole bi mu am tey jilee la Aïssatou Diop Fall waxoon rek moo ci nekk mooy président Macky Sall mooy directeur de campagne bu Ousmane Sonko présenté na ko sénégale yi yëpp ba ñëpp xam ko bëgg ko sopp ko actuellement nag mi ngi koy présenté au monde entier te bu boobaa day gën a jëm kanam nag manœuvre bu fi mënti daal di am ngir daal di jéem a lewal mbirum troisième mandat du sotti ndax nul ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs au Sénégal kenn mënul def lu ëpp ñaari mandat yu tegaloo fii suñu am réew di Sénégal te président Macky Sall mënu cee bokk di gën a wóor mooy waa APR nañu jéem a uti ab candidat ngir atum 2024 te itam ñu xam ne ku ci mënti ñëw di nga janoo ak Ousmane Sonko car nul ne peut l'empêcher d'être candidat en 2024 car c'est le peuple qui a choisi c'est le agit avec le cœur envers Ousmane Sonko. AGT News.